de Sadio par exemple en dehors des entraînements yi ngeen koy gis nii avec l'équipe nationale mais il a d'autres entraînements yoo xam ne invisibles yoo xam ne doo gis yéen ñun mais ñooñu dëkk moom gis nañ ko il est en salle à des heures mois yoo xam ne mi ngi salle am na lu muy liggéey keneen ak keneen ak keneen donc kooku mënoo tout de suite wax rek ne ni am na 30 ans rek 31 ans rek mais c'est vrai que aussi c'est vrai que aussi au fur et à mesure que équipe bi avancé mais forcément comme ni mu doon au début comme à mais yow tu auras toujours des des sorties. et des entrées et des entrées. d'accord forcément. bon mm. man man je poserai pas une question Adja damay contribuer par rapport ak euh, vieillissante bi ñuy wax ci génération bi. Mm-hmm. pour man c'est pas une génération qui est vieillissante mais c'est une génération boo xam ne dafa nekk à maturité donc euh, quand je dis ça moom mooy ma demee à l'international je prendrai exemple sur quelqu'un boo xam moom mooy Luka Modric Cristiano Ronaldo Léo Messi. Mm-hmm. donc on parle de Euh, alors ce sont des joueurs yoo xamante ne tey bu ñu duggee ci coupe du monde ce sont les meilleurs joueurs de cette compétition la donc euh, tey l' équipe du Sénégal xëy na lan moo ñu jàpp moom mooy depuis 2012 ñu ngi leen di dégg loolu benn la donc euh, de deux je me dis xew contre Bénin mën naa wax ñenn ci sénégalais yi ne dañ ne nañ dugal xale yi ñu def turnover dugal nañ xale yi gis nañ résultat bi ni mu demee donc foofu noonu on est revenu face au Brésil ñu jaxase am résultat escompté. ñu ci bëri gëmuñu woon na Sénégal xëy na war na mën a am ce résultat la donc importance bi affaire bi am moom mooy lan donc vécu bi nga xam ne tey ces jours là am nañu ko donc loolu mooy waral tey ces jours là bu ñu yegsee ñoom ñuy xale yi dañuy mën a am benn aisance ci biir intégration bi donc c'est très important tey ñuy bàyyi xel ne âge boobu noonu ñuy wax ça compte très peu li am importance moom mooy bëgg-bëgg ci terrain mais aussi tey relation bi nga xam ne joueurs yi am nañu ko seen biir dans le jeu mais aussi dans le vestiaire parce équipe bu amul jàmm on rappelle très bien de ces générations qu'on depuis ñuy dem Bata kenn gënuñu woon équipe fii mhm. mais ba ñu demee ci biir jeu bi feeñul naka la ñu génne te pourtant on était la meilleure équipe tey bi ñu mhm. demee ci éliminatoire yi mhm. muy attaque bi ni ñu dugal ci ay bi kenn dugalu ko fi ba ñu demee Bata équipe yoo xam ne tey bu ñu leen boole woon Sénégal bee kenn waxatu ko te bi ñu demee tey résultat yi ñëpp gis nañ ni mu demee donc il faut dire que tey dafa war a jot ñun ñu arrêter aussi quelque part di diaboliser cette génération la parce que c'est une génération pour man boo xam ne amul benn génération bu def mieux que cette génération là donc que ce soit Sadio Mané Cheikhou Kouyaté wala boog Idrissa Gana Gueye xëy na ñun tey lañ mën a toog leen décrier quelque part mais il faut diir ko aussi ñoom seen temps def nañu ko ci équipe bi donc fi ñu toll tey jii moom mooy accompagner ces joueurs là te pour accompagner leen aussi il faut ñuy nekk ci terrain bi nit aussi euh, capacité yi ngay am bi ngay nekk à vingt ans vingt cinq ans boo amee trente ans mënuloo ko am donc foofu noonu li am importance moom mooy la gestion donc euh, cette gestion là moom mooy euh, am nañu un certain temps de jeu boo xam ne war nañu ko mën a am mais aussi am nañu des jeune yoo xamante ni certains efforts yi ñu doon def ces jeunes là ñoom ñoo koy def donc ñoom li ñuy moom mooy replacer les joueurs. Mm-hmm. foofu la équipe ñun mënuñu def leneen te aussi temps bi dafa gàtt compétition yi bëri na gis nga ba ñu jógee coupe du monde ba léegi ñu ngi ni demaat aussi dans une autre coupe d'Afrique des nations donc faut pas vouloir rajeunir jël xale yëpp dugal leen ñun li ñu dal moom mooy nous sommes victimes de notre propre qualité donc je m'explique moom mooy tey partout en Europe on voit des joueurs yoo xamante ni ñu ngi exploser donc oui. c'est très normal tey mm-hmm. ñëpp bëgg itam ñu dugal leen ci équipe nationale mais aussi il faut savoir que euh, c'est une sélection dans faut d'abord euh, apprendre la vie de groupe ba pare door a miin say coéquipier xam comment ça fonctionne loolu noonu boo ko amul aussi mënuloo ñëw tey nga dugg être performant on a vu énormément de cas yu mel noonu dans une sélection donc pour man il faut patient avec ces joueurs il faut être patient alors bu am nga benn benn question par rapport ak euh, ñi nga xamante ne moom mooy euh, ces jeunes joueurs ces jeunes lu qui frappent à la la porte de cette euh, de cette sélection nationale mais aussi ni ko ni ko Grégoire waxee échéance yi mi ngi ñëw soreetul donc peut-être coach dina dina jouer avec tout la mais bu ci kanamee léegi aussi coach Mayacine dina dina si ñëw peut-être boo amee benn question balaa ñuy ñëw ci jàngat bi nga xam ne Greg def na ko. Adja dama wax ne juste que grec euh, am na nga xam ne critique yi mënul ñàkk ci maanaam ci équipe nationale parce que boo ko demee ba ki nga xamante moo di maanaam Lionel Messi nekkoon meilleur joueur du monde euh, dem na fi ba gars yi ko critiqué ba mu bàyyi li ba mu demee ne day gedd day bàyyi li nga xamante moo jëm ci wàllum équipe nationale jamono ji Cristiano Ronaldo il a 39 ans fi nga xamante moo di dëkkam bëgguluñu sax mu ñëw li nga xamante moo di sélection parce que barki démb la joué li nga xamante mooy deux centième sélection moom sax moom mujjee marqué pour li nga xamante Portugal mujjee gagné ay ay mag lañ ñoom ba tey malgré ñu ngi def ay performance critique mënul ñàkk ci li nga xamante moo jëm ci li discipline yëpp mu mën a nekk mu di sport di football di basket entre autres mais li ma ñëw euh, Adja wax na ko sànq euh, mooy euh, xale yi nga mënul noonu lay am parce que booy xale booy jàng doo doo doo tëb tëb résultat yi tëb tëb rek yëpp nga am li nga xamante ne moo di maanaam ay di préparer li nga xamante moo jëm ci wàllum a baax xale yi vraiment ñu ngi fëgg à la porte de l'équipe nationale A yow mi nga euh, direction technique mais en fait moi je reviens ci match bu Bénin bi ah moi je pense qu'ils ont fait un bon match. effectivement un bon match. ça on l'a pas mm-hmm. mais moi je trouve que c'était un très bon match. Mm. ah oui boo ko doon noté ci indice su 10 ñaata nga koy noté. seen match mais peut-être jox 8. ah bon mais oui mais parce que en fait parce que si on a mis une défense inédite. Mm-hmm. qui n'a jamais joué. comme comme il a dit il a tourné l'équipe. mais Ablaye Seck xaw na yàgg ci sélection bi tamit. oui mais Ablaye à droite ni à gauche ni à ni ni au centre. mais contre Mozambique essayé nañ ko aussi. oui mais d' accord naa mais dama ne c'est-à-dire que c' est une défense bu nga xam ne tey ñi fa dugal ñëpp une défense inédite Sénégal boo léegi ana seen équipe défense xam nga ñooñu lay wax ñu ñu lay wax. Kalidou Abou Sabali Kalidou. Habib Habib ñu lay une défense bu nga xam ne peut-être inédite et ensuite mais je pense que c' était un bon match. et peut-être que on aurait pu gagner ah parce que quand même on a eu beaucoup d'occasions de but yoo xam ne peut-être moo euh, ci li nga wax xam nga tu xam nga je que il nit ñi am confiance ci nga xam ne ñoom lañ dégg dénk équipe bi que bi ñu ko yoree ba léegi quand même malgré wax ji bari na mais toujours à chaque fois dama yàq dañu am raison ci ñi quoi mais nañu bàyyi c'est-à-dire que tu sais ce que je veux dire mooy lan mooy on a de jeunes kii wax na ko léegi il y a beaucoup de jeunes qui explosent CHAN bi am na ay ñuy exposé U20 bi am na ñu exposé. am na ñeneen ñoo xam ne amuñu chance jouer U20 ni CHAN mais ñi ngi jouer également dans les grands championnats. Mm-hmm. mais ndànk-ndànk rek. Mm-hmm. je que on est assez intelligent et assez structuré pour xam exactement à moment à quel moment il faut les faire rentrer ban moment également aussi la ñu wax dugg si kan moo war a ñëw et cetera parce que quand même une équipe c'est très important. parce que prenons le parce que Lamine Camara bokk na ci aussi ci li li li agité débat bi. non c'est man je veux pas du ma kii quoi du ma. personnaliser du ma personnaliser. je pense muy Lamine. mais mën nañ ko citer en exemple muy beneen Lamine bi nekk également aussi. Euh, ah RS ah, muy mm-hmm. keneen ak keneen ak keneen ak keneen. tu sais nañ leen bàyyi rek ñu def seen seen seen seen chemin. Mm-hmm. ba war a yegg si. parce que je ne pense pas que man yaakaaruma gis entraîneur boo xam ne am na yaakaar ni kii. boo ko indi ci équipe moom dina ko indi lu baax mu bañ ko indi parce que nous on n'est pas clubiste nous on gère des joueurs sénégalais mm-hmm. ça c'est très important new ñu defuñu defuñu toile wala wala ci bopp joueur non non non joueur bi sénégalais la. mais mais mais coach mais est xam nga dañu faral di wax li nga xamante moo nekk maanaam carrière football maanaam dafa dafa gàtt.

fi muy joue mu am mu am place mu mën a ñëw. non boobu la période mais période boobu moo lay wax nii xam nga xam nga joueur mën nga nekk performant mais malheureusement poste bi nga xam ne ngay joué mais dafa fees mais doo ko indi pour indi ko rek. d' accord par rapport ak. polémique boobu parce que ça aussi c' est important. coach balaay parce que Ibrahima Niane moom ngay wax. effectivement mi ngi woon ci tablette wu mm-hmm. mais malheureusement après il alors yow xam nga day liggéey ak Euh, donc vous travaillez en étroite collaboration euh, mais ñu bëri parce que ci yenn ci seen gis-gis dafa dafa dafa arc-bouté wu torop ci ñi nga xamante ne moom mooy joueurs yi mu defandooloon loon des Jeux olympiques en deux mille en deux mille douze moom moo war a chaque fois buy buy buy invité buy convoqué aussi ñooñu lay ñooñu lay convoqué alors dans la tête du sélectionneur surtout bu waree def euh, yenn yenn choix yi. lan mooy critère su weesoo performance parce performance moom moom moom moom moo njëkk ci ci ci lan ci lan lay basé wu ba nga xamante ne noyau boobu pratiquement à chaque fois da ci da ci grignoté da ci da ciy jël noyau bi kan ak kan Kalidou Koulibaly noyau bi nga wax moom Sadio Mané kan ak kan non je parle de la sélection olympique non je sais c'est-à-dire que noyau bi ngay wax parce que Aliou ñooñu mu nekkaloon 2012 mais kan a fi des Sadio Mané Kouyaté Kouyaté Gana Gana ak kan encore c'est-à-dire que tey trois jours sur vingt six joueurs yi ñuy convoqué mais mënul waaj dafay arc-bouté wu am na ñu fa nekkoon dem nañu Moussa euh, Traoré Moussa euh, kii Moussa Konaté était là il est parti mhm. keneen ak keneen Stéphane Badji mhm. tous ces la là mais parce que simplement que mais ils sont plus devenus performants peut-être ils ont été battus par d'autres yu ñu remplacé ñëw yoo xam ne bokkul woon ci ñi nga xam ne am na amoon na leen en 2012 donc c'est qu'il y a une logique il a une logique c'est-à-dire qu'aujourd'hui pourquoi Ghana est resté jusqu'à présent pourquoi Kalidou euh, Sadio ak yooyu mais parce que ils sont performants en club ba léegi su fekkoon ne ñu performant peut-être que peut-être match bi bàyyi na leen yoon bu yàgg am nañu ne woon équipe nationale xam ay Papis Demba Cissé et tout ça mm-hmm. mais ils sont sortis il y a d'autres qui une sélection am lu nga xam ne aussi c'est mooy ba la booy dem ba nga xam ne am benn groupe bu nga xam ne da nga am ossature aujourd'hui dañu am dañu am dañu am dañu am ce qu'on appelle euh, une bonne une bonne base ce qu'on appelle euh, une équipe basique nga jëlee ko ci ci ak ci gardien de but ñëw dans l'axe défense au milieu tu vois am tu retrouves des gens yu nga xam ne on a ils ont l'expérience au moins de deux à trois coupes d'Afrique mais ñooñu mais c'est important de les garder et s'ils restent performants bien sûr xam nga toujours on parle de way temps de jeu nangam ak nangam mais c'est vrai l'appréciation d'un temps de jeu parce que joueur bi simplement joué wul mais le joueur il est sur le banc il est prêt à rentrer si on le fait rentrer. et il s'entraîne avec. Euh, et il s'entraîne avec l'équipe de performance. Ouais. et tout entraîneur yi ma xam boobu. li ma yaakaar ci entraîneur ñi nga xam ne joué wuñu week-end bi mais toujours ils ont un match le lundi ou le mardi. d'accord match plein pour au moins se les mettre à niveau donc c'est vrai que c'est bien d'avoir des joueurs qui jouent régulièrement parce que loolu baax na aussi. mais beneen côté également aussi am ay joueurs yu am un peu de fraîcheur aussi ba tey baax na aussi. bu ñëwee dans la compétition. benn question la. waay waay waay xam bu jël li nga xamante moo di décision boo xamante ne dafa jëm ci wàllu équipe nationale su équipe nationale réew mi du ñàkk ne dina concerté wu ak ki nga xamante moo di maanaam boos boosam di yow di directeur technique bi. est-ce que ANACIM dafa na de presse ñu wax ne peut yenn joueurs yi nga xamante ne dañuy dem si yenn club yi di football mën a jàpp ne mën nañu def entre parenthèse li nga xamante moo di seen sélection ki nga xamante moo moo nekkoon équipe nationale joué na li nga xamante moo di Coupe d'Afrique fi nga xamante moo moo di Aliou Cissé boobu ba tey gëj la ko convoqué mën nañu da ngay dañuy dépasser quand même nag événement eh dañuy dépasser c'est-à-dire xam nga moment boobu ñu koy wax boobu. Mhm. xañ na peut-être Arabie Saoudite euh, seen championnat peut-être melul ni mu mëne. benn un deuxièmement aussi neewul du jël joueur bu dem foofu mais parce que dafa ne joueur boo xam ne dama ko war a sélectionné en Arabie Saoudite il faut mu wan ma lu nga xam ne war naa ko mën jël par rapport ak ku nga xam ne mi ngi joué dans le Big Five dans un championnat plus huppé d'accord loolu au moins quand même neex naa dégg. man su may def un choix entre un joueur buy jouer c'est-à-dire ku jouer en Arabie Saoudite ak ku jouer en Angleterre ak yooyu mais je je lorgne beaucoup plus du côté de l'Angleterre que de là mais ils n'ont jamais été mauvais quand tu prends par exemple Algérie le kii kii celui qui marque le but. Bounedjah en jouer. Arabie Saoudite ah fallait fallait jouer aujourd'hui le cas de Kalidou Koulibaly c'est pas parce qu'il va aller là-bas que c'est fini par la sélection pour lui ah dafay dem pour jouer. Mm-hmm. heureusement que c'est un championnat bu nga xam ne y a beaucoup de bons joueurs qui y vont maintenant donc ils ont relevé au moins le niveau de jeu donc c'est différent que nga xam ne foofu lay jouer mais il n'a jamais été sélectionné ak bokkul ak ki nga xam ne il a été sélectionné d'abord et ensuite il va terminer sa carrière mais s'il est toujours le on le prend d'accord alors coach dinañ si dinañ si gën a ñëw parce que du moom kese moom moo dem euh, fi nga xamante ne moom mooy Arabie Saoudite euh, ki nga xamante ne moom mooy Edouard Mendy on attend aussi d'autres grands noms hein, du football européen mm-hmm. yu nar a dem foofa ca émirat pays émirat arabe unis sax moom mun nañ ko mun nañ ko waxee noonu mais balaay loolu Grégoire da ngay da ngay ñëw ci ci ci parcours euh, équipe nationale A parce que dañuy démarrer par li nga xamante ne moom mooy vitrine bi te dañu gis ne euh, seen seen temps de travail vous avez emprunté li nga xamante ne moom mooy raccourci c'est ce qui a c'est ce qui vous a valu d'ailleurs li nga xamante ne cette fois-ci moom mooy réussite bi mais aussi équipe nationale A bi participer na ci ci ci ci ci ci lu bëri alors Grégoire ñëw nga ci depuis coupe euh, du monde bi où le Sénégal a disputé le second tour mais s'est arrêté en huitième de finale mais ñu gis ni ñu ngi continuer liggéey bi avec une qualification en Coupe d'Afrique avant l'heure et cette belle euh, victoire face au Brésil. waaw Dia loolu nag bu ñu koy wax rek ça veut dire que le Sénégal a joué beaucoup de matchs mais aussi le Sénégal fexe na ba tey cette cette barak ngir am tey li nga xamante ne ni ah, moom mooy les résultats yi ñu am donc ce parcours la commencé bien avant la Coupe du Monde ba fii moom lañ leen di jàngatal. li nasaraan naan une fin de saison flonte maanaam njeexitaluk saison bu saf-sàpp tar lool bokk na ci li nga xamante ni gayndeek Sénégal loolee la ñu dund ginnaaw waajtaayub coupe du monde bu saf-sàpp dem ci coupe du monde bi lee génn ceek anam yoo xamante ne ni daanaka doce ne ginnaaw lajj bi ci kanamu Angleterre noonu ñu di dellu seenu club ba ñu ñëwaatee rek ci compétition FIFA yi le enchaînement bu mat sëkk la ñu taxawee ñaari jogante ñu ko amal seen diggante ak Mozambique ginnaaw double confrontation bi le gaynde ak Sénégal daanaka sax noppalu lu bëri noonu ne lañu rek fa wuutali boo xam ne dañu ci programme tapp ci beneen upp jongante xaritoo ak équipe bi nga xam ne moom moo di Brésil ak juróomi raay ak champion du monde yamu yora ngay nekk Sénégal ci biir beneen moom ñu daal di rek amal ab 19h mujjee fàtte mbokku ne am benn ball jongante jàngat ba ca gënoon a fës bokkoon na ci rek ay joueur yoo xamante ne physiquement ñenn ci ñoom ak stade José Alvalade bu foofu di sax fësal beneen upp xar kanam jongante jongante bu am solo seenu performance bu rëy boobe tax sax ñu daal di làpp Brésil ñeenti bal ci ñaar jamono ji fësalaat beneen taxawaay ci li nga xam ne moom mooy dendub Afrique ak ndam lu am solo li ñu mel xam ne tax na ñu ma am beneenub yaakaar ci li nga xam ne jëm na ci classement FIFA bi léegi ak Maroc la leen woon ci ay poñ daanaka bariwul benn yoon na waaye rek bi ñuy def ci li nga xam ne bokk na ci rek njeexitalu saison bile bokk na ci ay match yu bëri waaye préparation bu am solo gestion équipe bile bokk na ci li nga xam ne tamit Aliou Cissé fësal na ci jéego bu am solo ci match yu bëri yi la yépp daanaka jauge na niveau équipe bi ba noppi rek fësal yeneen nu lu ni mel ceeb diir bu gàtt boo xamante ne ni tax na sax débat yi gën a te bari ci bile katañeer merci Grégoire sàmm ngoom muy jàngat boo ñu defal waaye bala ñuy balaa ñu lay bàyyi ak coach ci question yi dañuy joxat kàddu ki nga xamante ne moom mooy le sélectionneur euh, national mu dellu si ci ginnaaw bi mu jongante ak Brésil ñëw jël vacances jamono mais aussi xel xalaat yëpp mi ngi ci coupe d'Afrique. bokk na ci yàlla xam ne bu ci askan bi assisté jamono ji ak yenn joueur salisé tey ji ak ni nga xamante ne mooy seen potoloy de la de la liste position d'équipe. Kouyaté, ça fait, ça fait pratiquement depuis 2012 que je suis avec Chérou. Euh, Ghana, je connais ses qualités aussi. Il a 100 sélections, il n'a pas grand-chose à prouver. Dans cette équipe nationale-là, il a déjà fait ses preuves, je le connais très bien. C'est des garçons que je chemine avec eux depuis pratiquement plus de 10 ans. Il, me tenait à cœur de voir euh, d'autres garçons comme, euh, comme euh, Pape Gay aussi, qui a, qui a fait une très très comme euh, comme Crépin, c'était important de les, de les voir. Jackson, j'ai envie de dire, contre le Bénin, il a été intéressant, il a fait une très bonne entrée aussi. Euh, de l'autre côté, que ce soit Formose, donc euh, il y a vraiment des garçons qui se sont montrés sur ces deux matchs-là. Et en réalité, c'est ce que je disais, ces deux matchs-là doivent nous permettre aussi euh, de voir d'autres stratégies, de voir d'autres garçons, de donner du temps de jeu à d'autres garçons. Mais en réalité, tous ces deux matchs-là, c'est en préparation de notre liste finale pour la, pour la, pour la CAN. Donc aujourd'hui, le groupe Sénégal s'est étoffé, parce qu'il y a des garçons qui ont, marqué des points oui, la concurrence va être encore beaucoup plus vaste et je crois que cette concurrence, elle est importante. C'est ce qui nous permettra de progresser, c'est ce qui nous permettra aussi d'atteindre nos objectifs. écoutez, un match de football, euh, n'oubliez pas que quand l'équipe que vous mettez au départ fonctionne, marche, fait de très bonnes choses, les consignes sont respectées et je ne vois pas pourquoi je vais déstabiliser mon équipe en apportant autre chose. Non, j'étais satisfait des garçons qui étaient sur le terrain. Ils faisaient leur travail sur la stratégie, sur la tactique. Ils étaient très présents.

voilà c'était la réaction du sélectionneur national mu dellu siwaat ci liggéey bi nga xamante ne ñu ngi koy def jamono ji bi ñu génnee ci une coupe du monde jëm nag ci une coupe d'Afrique euh, avec comme objectif la conservation du titre continental euh, fi ñu ci toll ndox fi mu ne nii li des bëreetul balaay ñuy attaqué li nga xamante ne moom mooy la sixième et dernière journée dugg nag ci li nga xamante ne moom mooy cette coupe d'Afrique qui va démarrer au mois de janvier fële ci Côte la ak coach alors coach c'est beaucoup de matchs beaucoup de joueurs yoo xam ne dañu leen utiliser en si peu de temps avec des joueurs également yoo xam ne seen saison xëy na demewul noonu moom bu ñu koy wax en termes de bilan donc tey entre tey cette préparation jëm ci coupe du monde bi jusque après coupe du monde ba tey fii ñu toll nii est-ce que boo doon ñëwaat ci liggéey bi en général comment ça s'est passé. non mais je pense que ça s'est bien passé je pense que euh, globalement c'est positif. Euh, pourquoi positif parce que tu gagnes une nga gagné une coupe d'Afrique tu te qualifies une deuxième fois en coupe, en coupe du monde et tu passes également aussi le premier tour je pense que déjà loolu rek déjà c'est c'est un parcours positif avec autant de jeux que tu as utilisé également aussi euh, loolu nag li koy indi mooy que toujours comme ni ma la wax dans la marche des choses ba léegi entraîneur bi quand même dafay am toujours un objectif bu nga xam ne mu ci kanamam xam nga bi ñu génnee coupe de coupe d'Afrique tout suite suñu projection la coupe du monde mais maintenant léegi pare nañu coupe du monde maintenant la première projection mooy la coupe d'Afrique bii di ñëw mais accès guñu parce que en fait ñu ngi ci phase éliminatoire yi ba léegi donc am na temps fi ne nii d'ici la la dernière journée encore mu remobiliser waat encore son monde bëgg na am ay gën a firnde mais fekk également aussi ñu nga xam ne ñu ngi commencé na championnat bi également aussi parce que on joue au mois de septembre dina am plus de lisibilité et plus de visibilité donc sur tous les joueurs et je pense que à partir de ce moment peut-être que dina xam exactement les joueurs sur qui il pourra compter pour la Coupe d'Afrique mais pour le moment c'est encore tôt parce que euh, euh, pareeguñu championnat bi éliminatoire yi ils sont en vacances on attend que ku ci nekk ñu xam exactement après fooy dem déjà ah mais en tout cas le discours a été très clair que il faudrait quand même qu'on essaie d'être dans un club où vraiment tu as la possibilité de beaucoup jouer. voilà coach. waaw nga am possibilité jouer lu bari mooy mooy li gën maintenant après euh, comme on a dit euh, équipe aussi nag équipe la parce que mën nga dem ci benn club également aussi euh, xaj na poste bi ngay jouer peut-être am na ku la gën a xarañ mais c'est obligé nga toog ci banc bi. Mm-hmm. mais est-ce est-ce loolu c'est pas c'est pas dire que tey ces jours-là. Euh, obligatoirement ils doivent dans des régler seen situation ba noppi balaa ñoo tey xalaat loo xam ne moom moo jëm ci dernière journée bi ak préparation Coupe d'Afrique bi pour ne pas tey am yeneen i jafe-jafe dans cette sélection. non non du ñu am jafe-jafe xam nga on a une lecture te am nañu lecture bu leer je que am nañu lecture bu leex xam nga tu sais euh, problème bu ñu ngi koy wax depuis avant la coupe du monde ñu ngi ko doon wax avant la coupe dafa ñu ngi koy wax xam la. Mhm. mais ñu ça je pense que euh, gis nañ ne que ni loolu nekkul handicap parce que mën nañ ko mën nañ koo mën nañ koo mën nañ ko mën nañ ko kii. tu sais la coupe du monde li ci li ci ci difficile mooy mooy le temps de préparation qui a très court parce que dafa am benn façon bu nga xam ne gis nga gis nga entraîneur bu amee deux semaines même moins de deux semaines de préparation avec son groupe il est capable mu mettre la à niveau avant le début de la compétition. comme ce qui s'est passé ci euh, journée bi ak euh, match amical bi. parce que parce que am na façon liggéey bu nga xam ne dafa am façon liggéey bu nga xam ne boo ko defee mais forcément. joueurs ni ñëwee ñi nga xam ne ils ont un de jeu ñi nga xam ne ils en ont moins ñi nga xam ne ils en am na façon liggéey bu nga xam ne bu ñu fa tolloo dix jours après di nga mën a am effectivement mettre les en niveau. pas complètement mais au moins daañu jegante ba nga xam ne au moins du performance physique parce que xam nga li ñuy wax yëpp c'est en terme physique du terme technique ou tactique n'est-ce pas parce que le rythme il long ils ont la tactique ils savent manipuler le ballon maintenant que c'est parce que peut-être que dañuy gëj a jouer match plein cent pour cent mooy tax peut-être que seen tànk yi peut-être il faut ñu am au moins cent pour cent ou quatre vingt pour cent mais boo amee jours yi mel noonu au moins quand ñu am ba quatre-vingts cent cent dix pour cent mais c'est déjà bien. d'accord alors euh, man damay ñëwaat ci question Grégoire bi euh, parce que ñi nga xamante ne ñoom ñooy joueurs yi moom coach juste après euh, le match euh, face au Bénin dafa dellu siwaat mu ne fi mu ne nii groupe presque bu seize joueurs déjà dafa commencé dessiner wu. boo xamante ne njortu na ne mun na appuyer wu sur ces seize joueurs seize presque dix huit joueurs yoo xamante ne xam na ne presque ñii am nañu chance figurer ci li nga xamante ne moom mooy list bi mais par rapport ak li nga xamante ne moom mooy seen saison prochaine am na ñoo xamante ne ils vont rester dans leur club c'est c'est mais am na ci ñoo xamante ne aussi balaa ñuy def yenn choix yi aussi. dañ ci échangé ak moom mi nga xamante ne moom mooy moom mooy sélectionneur bi donc ñàkkul même le cas de de kali du Koulibaly qui est d'ailleurs son capitaine ak même Edouard Mendy ak yooyu parce que Edouard Mendy il a di ñoom ñaar waxtaan nañ mais il a dit que moment bi dama bëgg consacré wu concentré wu sama famille ak yooyu donc ñàkkul waxtaan boo xamante ne am na entre joueurs yi ak ki nga xamante ne moom mooy seen sélectionneur mais ils sont toujours des joueurs de l'équipe ba léegi c'est des joueurs de l'équipe nationale comme il l'a dit c'est vrai que une, une équipe ça tourne autour de 14 13 14 16 joueurs un benn compétition moom loolu moo koy joué ah. loolu moo koy joué ah 14 nga la chance que nous avons nous moom laay wax souvent ci l'exemple dañu ko jéem a xool mooy que l'équipe du Sénégal depuis 2017 ba 2022 amul équipe nationale bu Sénégal bu ko ëpp ay cadres yuy joué dans le Big Five ñoo ci ëppale. yu joué équipe nationale et ça c'est très important du Maroc du Tunisie du keneen ñun li ñu am ci joueur entre 2017 ak 2022 bii li ñu am ci joueur yu joué dans le Big Five Big Five rek boo ko waxee mooy championnat yu mag yi. Ah. Angleterre Italie Allemagne li ñu fa am France li ñu fa am moo ëpp li yeneen joueurs yi am ñun bu ñu amee ay 12 yeneen ñi ngi ci 6 ñi ci 4 ñi ci 5 ji ci 7 loolu c'est important parce que une Coupe d'Afrique une grande compétition comme ça. dafa am importance bu nga xam ne am joueurs yu mel noonu une ossature à douze treize quatorze joueurs. c' important. d' accord dafa am importance mais comme on dit encore une fois euh, on va vers la Coupe d' euh, ñu ngi ci phase éliminatoire yi parce que jeexagul bu ñu ko terminer mais le coach lui-même fekk championnat bi commencé na parce que dans le septembre la ñuy joué suñu dernier jour entre le et le septembre. le championnat mois d'août dina commencer. donc mois d'août dina commencer donc en attendant. que le championnat ñu reprendre seen championnat def seen i vacances en attendant qu'on joue qu'on revienne également au mois de septembre en attendant qu'on sorte du mois de septembre et qu'on joue encore au mois d'octobre. mais, je pense que euh, euh il a vraiment le temps encore vraiment de de de travailler de continuer travailler comme il travaille c'est-à-dire qui change. ba ngay gis ci suñu match yi contre Bénin ak contre le Brésil yaa am na yaa beaucoup de nouvelles yoo xamante ne euh, maanaam wan nañ seen bopp football nañ vraiment mu di contre Brésil ak xamante moo di contre euh, maanaam euh, Bénin wax am na joueurs yoo xamante ne marqué nañ ci ay points mm-hmm. que DT di yàgg suivre yi nga xamante moon jàgg football yan jour nga jàpp ne ñoo marqué ay points ci mais je pense loolu bu koy wax peut que ñan ñoo joué woon contre Bénin ñëwaat joué contre contre contre qui contre contre Brésil. participe si football par Sadio. voilà waaw kat. donc Sadio Sadio noonu nouvelle tête moo tax nouvelle tête yi quoi ñi nga xamante ne peut-être kenn yaakaaroon woon ngay football. nouvelle tête y' a pas de nouvelle tête nouvelle tête kan la peut aujourd'hui bu nouvelle tête c'est un euh, nouvelle tête peut-être bu ñuy wax peut-être Jackson peut-être peut-être. ah Formose moo tax ma ne la moo tax ma ne la. Mhm. boo xoolee ñuy joué contre Bénin ñëwaat contre kii. nga xam ne am na joueurs yi nga xam ne effectivement que ni Aliou am na yaakaar ci ñoom. am yaakaar ci yow nag ça veut pas dire que ne forcément di nga fi nekk ëllëg parce que on ne sait jamais. Mm-hmm. on sait jamais et puis une équipe noonu lay doxee sax cest dire que xam nga tu dafay baax également aussi entraîneur mu am task force parce que ça c'est important. Mm-hmm. Mm-hmm. important nga am sa task force. dafa baax n'est-ce pas parce que ñoom ñoo mën a xëccaale ñeneen ñi quoi parce que day métti dafay dafay dafay dafay dafay jafe et je pense qu'aujourd'hui il tient son task force xam nga il tient son task force c'est-à-dire que ça tourne autour comme ñu ngeen di wax nii ah ñi ngeen di wax nii Kalidou Koulibaly Sadio Mané Gana Gueye tu vois c'est c'est sur là Mampalys alors ça tourne autour de ça alors et que ñooñu jàpp ne encore jusqu'à présent. mais mhm. ils sont euh, dina ñëw léegi très rapidement après ñëw aussi continuer ci liggéey bi ni mu déteindre aussi ci yeneen sélection yi mais il ñu ñëw aussi ci liggéey bi nga bi nga xamante ne def nañ ko au niveau de la sélection A euh, bi ñu génnee coupe du monde yi nga xamante ne ay manquement la woon cette fois-ci dimension bi ñu bëgg a jox. l'équipe mu bugg mu war a am une dimension mondiale mais surtout le travail que le sélectionneur est en train d'abattre par rapport ak yenn secteurs yi nga xamante ne dafa manqué woon parce qu'au début on parlait d'une colonne vertébrale mais maintenant dañu gis ne presque léegi poste yëpp ci bëri am na léegi ay ay ay doublure du am na am na am na doublon loolu yëpp dinañ si ñëw léegi coach mais balaay euh, loolu Grégoire euh, dañuy dellu siwaat ci li nga xamante ne moom mooy la réaction des des joueurs balaa ñuy dem vacances waaw c'était en zone mixte Dia léegi nga xam moom mooy Krépin Diatta Ismaïla Sarr ak ñoom ñëpp dellu si waat nañu aussi ci li nga xam moom moo nekkoon seen diggante ak Brésil ñu déglu leen. je pense que c'est c'est une fierté pour euh, pour tout le monde après on avait on avait à cœur de de jouer ce match et de le gagner il faut pas que aussi qu'on dise des choses qui qui sont pas vraies nous on avait confiance en nous on savait que c'est une équipe qu'on a joué en 2019 et qu'on qu'on a mis en difficulté on pouvait même gagner ce match aujourd'hui on on a été efficace, chose qu'on en 2019. Et voilà, ça fait la différence. On sait qu'on qu a une grosse équipe, euh, une équipe où tout le monde peut jouer. Donc cela, a, fait, la différence. C'est une victoire importante pour, euh, pour nous. C'était le dernier match, on avait besoin de cette victoire pour euh, des de vacances, pour euh, gagner plus de confiance avec les séances sur nous. C'est une victoire pour... Euh, dañ ci envoyé un message fort yeneen yeneen équipe pour wane ni que euh, on est là. non j'ai abordé ce match en toute tranquillité je savais qu'il y avait cet homme là derrière moi donc ça allait être facile non voilà c'était un match euh, important parce que on savait qui on affrontait mais voilà ça reste du football et ça s'est bien passé. il faut qu'on qu'on continue à bosser et rester humble je pense que c'est c'est aussi ça le Sénégal quand on est humble et qu'on bosse on pourra avoir euh, des résultats satisfaisants comme match bi ñëpp ñëpp ñëpp gars yi dañoo yaakaar ne Brésil day ñëw jàll suñu kaw mais kon ni ñu ko waxee rek match la match la kon yéen match yi ah. ndax ñëpp lañ doon xaar et que luy ñëw mooy mooy mooy mooy gën a métti parce que instant yi boo gagné Brésil ñëpp lay xaar donc dañuy gën a booloo rek xam nga xol yi tey dem wuti lu ci des incha allah. on s'attendait à donner le maximum mais on sait que tout est possible. Et donc euh, on n'est pas surpris par la performance qu'on a fait. Mettre 4 buts, c'est vrai que je pense, je pense pas que ce soit beaucoup de fois qu'ils en ont encaissé autant, mais on est très content. Voilà. Beaucoup de fierté, beaucoup de fierté. Franchement, pour tout vous dire, à la fin, j'ai appelé ma mère au téléphone, elle pleurait et je pouvais pas retenir mes larmes. Même déjà pendant l'hymne national, j'étais beaucoup ému. Et au final, c'est à la fin que tout est sorti, mais bon, c'est. Ouais, c'est un exploit. Après, on a bien bossé pour préparer ce match-là avec euh, les gars et le coach et le staff. Et c'est juste la récompense du travail qu'on a fait pendant ces, ces 15 jours. Ça fait deux semaines que nous travaillons. Nous travaillons avec le coach, du travail tactique, voilà. Parce que <clears throat> loolu c'est ce qui boo gisee ni avons défendre sax parce que ñëw nous avons défendre avec le Brésil. bu ñu sax euh, bu ñuy passante bu ñu mer bu ñu def dara nañu continuer liggéey parce que dina ñëw loolu donc moo tax euh, voilà résultat bi ñëw nii. lii moom avant match la ñu waxtaanee ñoo xam ne nii match bi du yomb. et déjà euh, préparé nañu si match bi genre match yi parce que Brésil la ñu am et je pense que bu ñu duggee terrain bi ñoom ñoo am possession de balle mais ñun nangu nañu accepter défendre en bloc en équipe bien bien compacte et essayer jouer contre au début mais bu ñu dugalee bu ñu dugalee rek après ñu essayer jéem a euh, jël leen ci kaw et puis euh, créer quelques occasions et au final on on a égalisé après. dans l'ensemble, on a, on, a, on a marqué 4 buts. Et je pense que dans l'ensemble, je dirais que Maritime gagne le match parce qu'on s'est créé pas mal d'occasions on a bien joué, on a bien défendu. Parce que vous voulez gagner le Brésil, il faut gagner le duel. waaw ba pare contre attaque yi nga koy nga koy assuré waaw loolu la loolu waaw loolu lañ def moo tax. oui on peut dire que c'est une euh, bonne victoire après on a joué euh, avec une équipe euh, meilleure je pense que c'est l'un des meilleurs de, du monde donc c'était au début. Donc après, on a, on a essayé de se regrouper et parler et jouer ensemble et se parler presque tout le match. On, on s'est parlé presque tout le match. Je pense que c'est ça qui fait une bonne équipe aussi. Si tu défends bien, tu es une bonne équipe. Et là, on s'est bien défendu. ah double bi bon rafet na trop neex na trop. est-ce que xam nga ni yaa ngi yaa ngi dugg ci ci histoire mhm. Sénégal. je pense que. képp ku nekk footballeur loolu ngay ñaan quoi liggéey liggéey surtout boo nekkee même en tant que yow journaliste keneen keneen lépp loo liggéey rek da ngay bëgg a dugg si histoire bi loolu moo nekkoon sama objectif incha allah damay essayer euh, jéem a atteindre ko. et ça fait bien parce que j'avais une saison très très très compliquée très très compliquée mais alhamdulilah aujourd'hui euh, dugal na ñaar bi ñu gagné je pense que voilà je suis content honnêtement suis content. voilà on termine avec euh, le leader technique euh, de cette sélection muy Sadio Mané mu ñëw ci sele euh, ci saison bu difficile bi nga xamante ne dund na ko fële en Bavière euh, mais surtout résultat bi nga xamante ne terminer nañ ko cette belle victoire face au Brésil alors coach damay ñëw ci li nga xamante ne moom mooy manquement wu équipe bi c'est vrai équipe bi mu ngi doon def ay résultats de mais li nga xamante ne moom mooy d'abord ci wàllu latéraux yi problème la woon. après ñu gis non par rapport ak li nga xamante ne moom mooy le onze parce que c'est vrai gis nañ coach des fois mu dem jël ay do yeneen doomu sénégalais yi ñu ñëw gën a renforcer équipe bi ba mu jël li nga xamante ne moom mooy coupe d'Afrique bi terewul moom ci boppam il reconnaissait des fois dafay am kenn koo xamante ne c'est vrai c'est le titulaire mais au-delà bu absence am amee rek les sénégalais moom sax il a des sueurs froides mais dañu gis depuis au sortir de cette euh, coupe du coupe du monde ñu commencé surtout yenn yenn secteurs yi fu ci mel ni ki nga xam te ne de déjà Sabali léegi am na benn doublure ku ci mel ne Formose Mendy ainsi de suite tu as Ismaël Jacobs fi nga xamante ne cette fois-ci euh, mooy défense bi euh, def maintenant il a il a le choix Koulibaly Abdoulaye Seck wala Abdoulaye Diallo Niakhaté ainsi de suite comment vous vous avez fait pour cette fois si mun a am équipe bu nga xamante ne leer na leen ne bu ngeen demee li ngeen bëgg peut-être mun ngeen ko yaakaar comment vous avez fait ce travail bon en fait euh, mais je pense que ni équipe bi doxee nii depuis la coupe du monde après les éliminatoires ont démarré de la coupe du, de la coupe d'Afrique mais c'est vrai que euh, amoon nañu ay peut-être euh, du ma ne peut-être insatisfaction mais peut-être des doublures surtout sur les côtés excentré gauche excentré droit enfin latéral gauche latéral droit c'est-à-dire que c'est vrai que avant Yacob du ñëw n'est-ce pas hein? à droite également aussi on avait Sabedi mhm. qui était sujet à beaucoup de blessures et qui pouvait dépanner des fois aussi et qui pouvait dépanner sur le côté mhm. maintenant ce problème est réglé mhm. donc il y a heureusement qu'on a eu Jacob en cours de route et le match contre la Bolivie qu'il était vraiment prêt pour jouer le match de préparation contre la contre la Bolivie pour la pour la Coupe du Monde et ensuite dernièrement on a fait appel à Abdallah Abdallah Ndour qui venait et après euh, on l'a fait revenir parce que bon compte tenu que mu ngi def championnat bu baax mm. titulaire à son poste également aussi euh, donc c'est vrai que bon après quand les choses avancent mais da ngay gën ça devient plus clair dans le choix ça devient plus clair également sur les postes yi nga xam ne ñu ngi ko doon wut Et eux, comme tu as dit, euh, machallah, qu'aujourd'hui, quand même, euh, on ne se plaint pas derrière, parce que quand même, euh, euh on peut avoir au moins 8 bons défenseurs, il y aura bien vraiment qui sont là. Hein, euh, dans l'axe, déjà, on a euh, Abdoulaye Sek, on a donc Diallo, Abou, on a également aussi Ndiakat qui vient d'arriver, on a également Kalidou, on a pas Abou également aussi, qui est là également aussi. Euh, donc euh, on en a au milieu aussi même chose je pense que devant également aussi euh, peut-être que li may wax tout le temps moom li ñuy wut ba léegi mooy mënuñ ko am mooy un excentré gaucher. waaw mhm. on avait malheureusement eu la chance d'avoir d'avoir de prendre sur le jeune sec là. bu ñëwoon jouer bu ñuy dem Autriche. bu mhm. ñuy contre Kidd mais malheureusement après il n'est plus revenu parce que après. on le on le revoit plus bien comme mais c'est ça que que nous n'avons mooy un excentré gauche. waaw excentré gauche daal loolu laa xam ne moom peut-être depuis que nu ko daan comment président dafa ñu xaw a të. bon on en cherche au Sénégal on en cherche également aussi un peu mais mais ça veut pas dire que euh, solo nañu parce que en fait aujourd'hui euh, Sadio peut jouer à gauche. Ismaïla peut jouer à gauche. donc amuñu problème bi et se a déjà. Euh, comment il s'appelle, euh, Eliman Ndiaye, qui est là, qui est venu, n'est-ce pas euh, Dans la position axiale, il y a le jeune là, comment il s'appelle, euh, Jackson, qui arrive déjà. Il y a Boulaye qui est là, il y a Habib qui arrive également aussi. Mm-hmm. Bon, voilà, je pense que. D'accord. On a, on a Alors, quand même, on a quand même, en tout cas, on a un bon, un bon noyau de joueurs, de groupe de joueurs, bon, vraiment, aujourd'hui, on peut quand même, si, si Dieu que quelqu'un gagne aussi, et que vraiment ñi ngi ñi ngi def seen championnat normalement amuñu problème. alors xam nga ci ñooñu am nañu ci ñoo xamante ne fii lañ leen formé am na ci ñoo xamante ne France moom moo leen moom moo leen formé mais nag il reste et demeure des Sénégalais à part te gis nañ seen engagement maintenant dafay tax ma dugg léegi cette fois yi ci wàllu formation bi c' est vrai am nañ ñi nga xamante ne ñoom ñooy les uvent am nañ équipe locale mm-hmm. mais aussi par rapport ak li nga xamante ne moom mooy relève bi parce que aussi équipe bi bu demee faaw mu am li nga xamante ne moom mooy cette relève au niveau de la direction technique lan ngeen ci def concrètement pour assurer li nga xamante ne moom mooy seen relève bi aussi bien pour les différentes sélections nationales mais surtout pour le football local. non mais <laughs> mais réponse je pense que tu l'as si on a une bonne équipe de U20 qui est championne d'Afrique c'est parce qu'il qui sont prêts à venir également en équipe à prime et peut-être étaler en mais équipe. Mais U20 bi gis nañ seen comportement Coupe du Monde. oui mais non mais moi je pense que comportement Coupe du Monde bi c'est pas lié à leur talent et leur qualité de jeu mais peut-être que euh, avoir des occasions de but qu'ils ratent c'est tout. pas de chance quoi. pas de chance parce que ça hein? Israël euh, contre Israël normalement c'est une équipe. ont gagné, etc., etc. Donc, c'est moins qu'ils sont de bons joueurs parce qu'ils ont prouvé que c'est de bons joueurs. Peut-être. Tout ça, ça être. C'est des choses qu'il ne faut pas quand même. Euh, mais coach ñëwal ci parce que parce que parce dafa dafa am solo bu ma parler de quelques joueurs en équipe nationale c'est c'est bien 26 en équipe locale 26 en kii am na ci ñoo xamante ne moom lañ leen di ñaan c'est tout le mal dinañ percer mais am na ñoo xamante ne du ñu mus a dem fi nga xamante ne moom mooy équipe nationale A et c'est pas seulement li nga xamante ne moom mooy les différentes sélections moom mooy football bi parce que football bi aussi c'est tout un ensemble et loolu foofu yow li nga xamante ne moom mooy sa liggéey dafay intervenir. moom laa lay wax ni. si on gagne en mais pourquoi on gagne en également aussi mais ñiy joué U17 ñiy joué U20 déjà ñiy joué u yii ñoom ñooy joué ji U23 peut-être prochainement. Mm-hmm. am na ji ñoo xam ne peut-être daañu tëb U23 dem directement peut-être euh, peut équipe A parce que à 20 ans déjà t'es révolu. Mm-hmm. tu es d'accord donc relève boobu ngay wax fi ne nii fi ne nii ñàkkuñu ko mais entre man amoo ba sax u yi mais entre U23 bii ngay wax nii bu ñu éliminé. Mais il y a combien de bons joueurs, de jeunes joueurs qui sont là-bas, qui tapent à la porte de l'équipe nationale i y en a combien Ils viennent d'où Fan lañ jóge le capitaine, il est de, nos équipes nationales. Maintenant, en dehors de ces sélections nationales, balaa may ñor Greg ak Babou, parce que duñu arrêté wu rek ci sélection nationale bi. Ah, on ah. parle du football sénégalais parce que ah. on parle de la direction technique nationale. Ah mais man kay je te du football sénégalais dans mais la sélection nationale les sélections nationales effectivement constituent le fruit d'un travail à la base parce que loolu ñuy gis mënoo gis école de football ñuy joué école de football yow mënoo ko gis mënoo ko fekkee bu fekkee intéressé wu la ñuy jouer également les cadets et les juniors qui jouent en club également. Ça mais le football de façon générale championnat bi. Ouais. Euh, championnat professionnel bi championnat amateur bi. bi nga xamante ne bëgg nañ mu nekk benn championnat de qualité ba nga xamante ne après moom mooy nekk peut-être réservoir pour les autres sélections parce que wax di ko waxaat ñëpp mënuñu dem équipe nationale. waaw mais nag toll nañ foo xamante ne am na foo xamante ne bëgg nañ le football yegg fa ci ci ci en en terme de standing. waaw mais Sénégal fi ñu nekkee Sénégal nekkul stand nekkul standing Adja le football sénégalais aujourd'hui est à un standing. mais comment faire pour position boobu mu nekk. mais continuer fa. parce que peut-être am na un travail. qui a été fait mais maintenant qu'est-ce qu'il faudrait faire pour permettre li nga xamante ne moom mooy standing boobu mu mu mu mu fa. mais loolu c'est pas maintenant que ñu koy def ça on le fait très longtemps. xam nga je je je vais revenir un peu rek sur le de la DTN xëy na peut-être que man j'attendais peut-être ce moment pour montrer aux gens que ñu nekk ñu di nelaw c'est pas un hasard d'arriver à ces résultats-là ça c'est au moins quand nit ku ak loo ko bañ bañ bañ mun nga ne au moins lii am na fu mu sukkandiku au moins et effectivement dafa am fu mu sukkandiku nga sama téléphone bii. suñu président la ko woon on a tout le temps travaillé sur un plan développement technique de quatre ans stratégique boo xam ne day ñëw indi ko en comité exécutif ñu approuvé ko teg ko di ci liggéey pas à pas plan bi c'est pas quelque chose de de, de compliqué c'est une analyse de la situation du football je prends l'exemple par exemple du premier plan qu'on a mis bi may ñëw man c'est 2013 2017 en 2013 où en est le football sénégalais je fais une analyse de la situation du football sénégalais à tout point de vue li ngay wax ni formation des entraîneurs ah football des jeunes football amateur le football professionnel les infrastructures la formation des arbitres ñëpp ba ma xam exactement que ne ñun suñu football fii toutes les composantes. toutes les composantes. et ensuite je dis nous en qu'est-ce que nous voulons arriver où nous voulons arriver. nga ne man bugg naa par exemple je donne un exemple que je fais un championnat amateur par exemple championnat amateur par exemple en deux en en euh, treize. c'était Ligue D1 Ligue 1 Ligue 2 et national après division régionale il y avait pas de N1 N2. mais ci ci ci ci ci plan boobu la ñu ne effectivement en deux mille quinze deux mille dix il faut qu'on arrive à un championnat divisé cest dire n un N2. ça a été une longue bataille parce que club yi nga xamoon N1 ils voulaient pas tout de suite que ñu génne leen parce que effectivement c'est c'est c'est les c'est les mais il fallait ça et on a une année transition pour arriver à ça loolu ci plan bi ñu déployé loolu moo tax ñu ni ko mën naa wax yu bare bare bare également aussi. d'accord et ci non même rek parce que c'est important parce que il faut me l'occasion d'en parler aujourd'hui c'est important aussi. quand on ensemble 2017 2021 également aussi on a décliné un plan stratégique yëpp ñu ngi téléphone su ko paree mën nga consulter mën naa leen ko ce plan là également aussi il part de la situation d'où on est d'où on est à partir de 2017 à partir de 2017 où est et où nous voulons aller en mm-hmm. et comme je dis c'est très simple c'est des questions qui se posent à partir où tu as fait la situation le diagnostic mais c'est la définir stratégie mais c'est la mise en œuvre et on évalue et c'est la même chose également aussi en 2021 qui nous amène jusqu'à 2025 même chose il y a toujours un plan qui a été mis en place. d'accord et ci loolu ay plan décennal lay nekk. quatre non quatre ans. Ah, loolu moom la lay wax parce que li ngay wax nii comment il faut faire pour rester c'est en 2021 qu'on s'est dit que avant 2021 il faut que maintenant léegi que tout notre tout notre football de jeunes. il faut ñu commencer ko maintenant génne léegi parce que en fait tu sais la chose la plus difficile mooy lan en 2013 c'est qu'en fait il fallait avoir de la visibilité dans le football xam nga visibilité mooy lan mooy il faut qu'on retrouve la scène internationale 2012 vous l'avez dit on a éliminé de manière vraiment 2013 on est éliminé par la Côte d'Ivoire dëgg mm. Mm-hmm. on a dit pour l'équipe A il faut que l'équipe A il faut que les U les U20 il faut que les U17 retrouvent la scène internationale parce que c'est ça qui va faire qu'ils ont de la visibilité et c'est ça qui va faire également aussi que la fédération bi cherche un autre mandat peut-être mën ko am. c'est important et des sous aussi. oui bien sûr parce que loolu le plan là li nga xam ne moo gën parce que dans chaque plan il y a des priorités bien sûr. il y a priorité 1 et la priorité principale pour nous mooy il faut que nos équipes nationales retrouvent la donc 2015 on y va on participe 2017 on participe pour l'équipe A 2015 on joue U20 2017 U17 arrivent donc a commencé à prendre effectivement à être visible dans la le deuxième plan maintenant pour les équipes nationales c'est en fait c'est d'être permanent dans la compétition et être régulièrement et c'est ce qu'on a fait 2015 2017 2019 d'accord mais xam nga foofu locomotive bi mooy équipe nationale A non non damay buruqal rek benn benn relance comment faire naka ngeen def parce que des fois am na ci ay résultats en demi parce que en 2017 dañu dañu éliminer quart de finale qu'est-ce qu'il euh, euh quest fallait faire pour que mais continuer li nga xamante ne moom mooy stabilité bi bi andi résultat yi ngeen ngeen bëggoon moom laa lay wax c'est-à-dire que je viendrai d'abord d'abord xam nga xam nga tu les gens peuvent être là c'est important mais quand il y a pas un fil conducteur doo tu as travaillé sur un fil conducteur non. Mm-hmm. oui avant nga ñëw fii tu as travaillé sur un fil conducteur que tu m'as envoyé pour me dire mm-hmm. Mayacine on va faire une émission voilà de quoi on va parler. mais si tu n'as pas ça mais doo dem. Mm-hmm. donc c'est important d'avoir ce fil conducteur maintenant la chance que nous avons en plus d'avoir un fil conducteur qui nous en de, de nous qualifier dans les équipes nationales. La deuxième, c'est permanent. Et la troisième, c'est de gagner les trophées pour les équipes nationales. Est-ce que vous attendez à autant de réussite en 2022 2023 Mais c'était euh, qui euh, Comment il s'appelle euh, euh, qui ah, En vous m'avez invité la NPS. Je sais pas si vous étiez là-bas. La NPS, vous m'avez invité pour me poser la question oui. pourquoi le Sénégal ne gagne pas. Hein? non non c'était euh, de presse. Mhm. à la veille à la, à la veille de la campagne de, la Coupe d'Afrique si te boo amee mémoire bu baax je vous ai sorti des des des des courbes pour vous montrer par rapport à toutes ces équipes qui ont gagné la Coupe d'Afrique et que nous n'avons pas gagné. Mhm. regardez notre marge de progression. je sais pas si vous rappelez de ça. c'est-à-dire c'était inéluctable parce qu'on remontait on quittait on était éliminé au premier tour on passe le premier tour. 2019 on joue la finale. Mm-hmm. et 2021 c'est aller à la finale et gagner. d'accord d'accord man dama ñëw daaw dama ñëw ci li nga expliqué peut li nga wax yëpp peut am na loo xamante ne ay charte tamit moo lal euh, maanaam li nga xamante moo jëm ci équipe nationale bi parce que peut être jour bu fi dugg dañoo ne lii ak lii lañ fay def lii ak lii duñ koy def peut être plani planifié ngeen ko léegi dama bëggoon xam. Euh, li nga xamante ne moo xaw barki moom maanaam ñu bari dañ ko décrier ne joueurs yi waruñu def li nga xamante mooy équipe nationale parce équipe nationale équipe nationale lañu nekk waruñu tuut yoo xamante ne peut-être boo liee tuut bi xamante ne tuut bi ci kii la jëm est que tamit loolu tamit maanaam bi ñu ñëwee seen regrou seen dernier regroupement bi est que toog ngeen waxtaan ak ñoom ñi nga xamante mooy mooy si tuut ci manifestation yi amoon manifestation meurtrière non c'est certains so interpellés d'autres ont dit exactement ce qu'ils ressentaient ça n'engage pas les innocents du tout ça n'engage pas les innocents un, un, qui parle mais c'est c'est c'est un Sénégalais boo on lui pose la question sur la manifestation vous posez la question sur la manifestation ma wax li ma comme on a posé la question à un joueur qui est sénégalais mais ça n'a rien à avec notre équipe nationale n'a amul amul benn parce que y a quelqu'un même y a un dañu bëggoon boycotter match bi contre Bénin parce que lii ak lii quoi. mais oui c'est notre confrère. mais ça c'est grave Yoro Mangara. mais c'est depuis le début jusqu'à la fin. amul benn rumeur. mais benn rumeur moo fay am. Dieu m'est témoin il y on a cest dire on n'a même pas parlé de ça ça dire dafa nekkul sax lu mais les gosses sont arrivés le 7 ils ont retrouvé le hôtel le lendemain les attentats ont commencé les gens sont rajoutés on connaît à qui il y pas une seule fois on a parlé

on n'a pas attendu le moment qui pour wax parce que vous avez perdu confiance ah. mais ça mais ça ñii régulièrement parce que xam nga soo amee ay joueurs yi sax nos frères ce nos neveux ku ci nekk ci difficulté. da ngay échanger ak moom da ngay président bi. une personne quelconque. Mm-hmm. tu vois un message de soutien ou bien tu l'appelles directement tu discutes avec lui mais c'est notre rôle n'est-ce pas. pour que effectivement pour que vraiment que tu restes debout. d'accord donc relation bi du ci terrain bi rek mais ça va au-delà. Ah oui, alors Grégoire dañuy dugalaale sélection bi parce que nous reste à peine 15 minutes le débat est intéressant mais il faut ñu ñëwaat. waaw mais mais ma ma ma ñëwaat ak yow. si si liggéey bi parce que non wax léegi ci plan football bi. parce que loolu c'est c'est très important. non même ci plan bi parce que parce que li ma bëgg wax mooy. très a pensé Euh, ci ci base des jeunes c'est-à-dire que xam nga tu sais dans une fédération fédération su fekkee amoo visibilité ci kaw pour nga liggéey li ci suuf boo defee benn mën naa gars génn la fi parce que en fait li ngay liggéey du nga ko gis on est d'accord oui ou non hmm. c'est une réalité maintenant aujourd'hui on a la chance d'avoir de bons résultats et de l'argent et de pouvoir effectivement liggéey ci suuf bu baax. kañ ngeen Coupe d'Afrique nag. ah bon là te dem fois mais avant la Coupe a eu de l'argent parce qu'on est parti en 2018 à la Coupe du ah. de l'argent ah, donc pour mettre pour mettre en œuvre. mooy la pour mettre en œuvre toutes nos toutes nos stratégies li ma lay wax ni tey on a un plan détection des talents au niveau des jeunes qui débouche sur l'académie fédérale loolu ba ñu koy wax.

qui est une porte d'entrée pour nous avec la CODEF. Mhm. C'est les scolaires qui est notre partenaire parce que depuis deux ans, trois ans, on organise chaque année les phases scolaires avec les, établissements du Sénégal. naka ngeen di travailler fi nga xamante ne moom mooy seen centre foofu ngeen leen di ah, regroupé ah, ngeen commencé ngeen commencé liggéey ci ñàkka ci durée bi parce que ñu ci bëri aussi ay élèves lañ loolu. loolu yëpp il faut nga loolu yëpp il faut nga ngeen académie c'est pas une académie comme de formation nga xam ne ils vont loger pendant toute l'année non. Hmm, ay par par période ngeen leen di. pendant les vacances. pendant les vacances surtout pendant les vacances par Noël grandes vacances. parce que li ñu bëgg mooy avoir une académie avoir des jeunes qui sont prêts à la relève tey on a la chance d'avoir une équipe de U15 Serigne Saliou ñi mu joué nii U17 yi. ils étaient Pape Faye mm-hmm. la plupart euh, DAF ñi mu yor U20 ils étaient avec qui ils étaient avec lui en u avec avec U17 ak moom yéeg ak ñoom c'est ce que nous voulons mettre en place des jeunes de moins quinze ans qui travaillent qui fournissent l'équipe nationale du Caire ça ne pas dire que ñooñu forcément sont les jeunes de l'équipe nationale mais au moins en grande partie ils vont être une base de relève boo xam ne mais mais et ensuite conforté par ces jeunes également aussi qui sont dans des centres de formation et dans des clubs. d'accord euh, dinañ si parce que après il faut ñu ñëw ci niveau football local bi aussi euh, par rapport ak niveau niveau de jeu bi mais mais très rapidement Grégoire euh, ki nga xamante ne mooy Awa Diallo dellu sil nañu un peu ci parcours sélection yi ces deux ces deux dernières années. mais surtout avec cette tache noire parce que sànq maa ngi koy wax à l'entame de mes propos muy cette sélection olympique qui participe en moment à cette coupe d'Afrique qui est à leur catégorie qui a démarré depuis hier. waaw mooy li Sénégal baaxoo Adja moom mooy un rappel historique par rapport nag à ces générations yi nga xam ne ñoom ñoo fi jaar ba noonu ñu yegg si fii c'est avec Awa Diallo. lu jege juróom benn fukki at ginnaaw bi mu bokkee ci kaanu 1965 ci Tunisie mu doon guléet ci moom réewu Sénégal dal di nay nag am bànneexu dal di jël titre continental ci atum 2022 fële ca Cameroun mu nekk ab ndam boo xamante ne nag mel na ni dafa jikk réew mi ndax boobee ba léegi sélection sénégalaise yi noppeetuñu di am ndam lu ëpp benn at a ngi ni juróomi titre de champion d'Afrique fekk si nañu réewu Sénégal lu ñu mësul gis ci ab sélection africaine Yaoundé ca février 2022 Maputo octobre 2022 Alger en février 2023 ak Caire fukki fan ak benn ci weeru mars ginnaaw benn at bu toftal benn weer ñeenti dëkk yooyee gis nañu réewu Sénégal mu dal di jël lu ci mel ni CAN senior CAN beach soccer CHAN ak CAN U20 bu Sénégal boobe nag ñoo jël ndam li ci yooyu lay jongante te kaaf doon ko amal ci dendu Afrique muy nag mbetteel bu fekkee ne xam nañu taarixu réew mi jëm ci wàllu football ndax nag réewu Sénégal ay mbetteel ay mbetteel la dal di tegle lu ëpp juróom fukki at ca ndorteelam bu njëkk ca kaanu 1965 ca Tunisie. waaye nag tegu tànk googee ñu teg tànk ci dendu Afrique dafa juddoo ci liggéey boo xam ne académie yi liggéey nañu ko ci diirub ñaar fukki at lu ci mel ni Aspire Jambar Génération Foot Dakar sacré Oslo FA AF Daaru Salaam ak yeneen daluwaay yoo xam ne ñoo fësal ay talan at bu yàlla sàkk daluwaay yooyu nag nga xam ne dafay gën a ñoŋal seen xarañte tax na ba ay génération yu bari dal di feeñ fii ci Sénégal même bu fekkee sax ne résultat yi teelu la feeñ ndax ca atum 2012 ca JO bu Londres amoon nañu fa ñu ñu teewal waaye ba ñu demee ba ca dernier carré bu euh, tournoi boobee Mexique moo leen dal di éliminé ci prolongation. merci beaucoup Awa Diallo donc Grégoire très ma bàyyi la ak coach parce que il faut ñu ñëw ci coowal U23 yi. ba balaa ñuy ci U23 xam nga dafa nekkoon ci ponk bu am solo moom mooy seen plan stratégique. dinañ ngi teg diir bi aussi c'est très important c'est court mais aussi c'est très performant mais euh, dans dans dans ces plans stratégiques là. xëy na le football local ruñ ko ci laay wax parce que boo xoolee tey notre championnat local comparé à à d'autres pays yoo xam ne mën naa ne c'est les pays du Maghreb Algérie euh, Maroc Tunisie et autres seen championnat bu ñu koy xayma c'est un écart un grand écart boo xamante ni day feeñ ci compétition africaine yi donc dans votre plan stratégique là le football local qu'en est-il moom lan la ci am tey ji ak seen évaluation fan ngeen ci toll ak lan ngeen ci prévoir question eh, réponse captable. oui oh, oui non la réponse elle, elle, elle, elle très on n'a jamais défini un plan stratégique boo xam ne on n'a pas pris en compte le football local. c'est-à-dire le football la ligue professionnelle et la ligue amateur. pour ñun c'est la augmenter la compétitivité de nos de nos de nos de yokk yokk yokk match yi ratio match yi parce que ñun on s'est dit que en 2013 ce pas mais il faut ñu ne benn championnat à d'accord en ligue pro ligue amateur wax naa la ko léegi ñu ngi ne woon ci. N1 N1 ak régional. on a dit non il faut au moins ñu def ci diggante bi n nga xam ne boo jógee régional daal N2 doog a N1 et ensuite augmenter également aussi de ratios de match. au niveau de entre mais coach loolu c'est pas mais... contradictoire quelques secondes rek parce que ñu bëri dañu gis ne ak moment bi niveau football local bi fi mu toll nga wàññi woon jël les cinq meilleurs wala six moo gënoon nga boole leen ci championnat que nga yokk li nga xamante ne moom mooy. Euh, euh, wàññi wàññi wàññi wàññi Ligue 1 bi. oui. def ko combien. pour que ñi nga xamante ne ay club la yoo xamante ne dañuy respecter scrupuleusement le cahier de charge ñooñu. di jongante ñeneen ñi ñu ñu ñu ñu rétro ñu rétrogradé leen. waaw ah, mais tamit soxna si. par rapport ak éclairage yooyu. soo ñu ci mënee andi nag kay bu ñu fi nekkee c'est parce qu'ils respectent effectivement les les cahiers de charge. qui a été mis en mais mais mais mais bu fekkoon rek si de charge bi kay dañu fi nekk. au du moins bokk ñoom fi ñuy tebale fi ñuy yëgalee fi ñuy yëgalee cahier de charge bi moom foofu foofu la bi toll mais soo bëggee jël cahier de charge non pas cahier de charge. wala cahier de charge non. mais on parle d'un championnat professionnel. Ah, c'est ce que j'ai dit cest dire que li tax ñoom ñu nekk fii. mais le premier critère. le premier critère d'abord pour duggoon professionnel c'était en fait de remplir au moins un minimum sur le cahier de charge qui a été mis en place. mais quelle est la pertinence de ces clubs. la pertinence de clubs. oui pourquoi pourquoi ces clubs. pourquoi. 16 mais cest à ñu yokk 16 clubs yi lan la lan la mën a andil par rapport. mais xam nga ñaata on joue toujours on joue combien de matchs pour pour pour un joueur qui joue le championnat et toujours tous les matchs ñaata lay joué. oui aujourd'hui le joueur le plus performant boo jëlee yëpp toutes les matchs qu'on score il a 70 matchs. Hmm, par saison. Eh, mais on est très low. on est très low mais mënuñu àgg foofu mais essayons quand même avant d'arriver à 20 parce que c'est ce qui de faire au moins 39 matchs dans les jambes plus la coupe du Sénégal plus la coupe de la Ligue plus les sélections que tu peux avoir au moins ça te au moins banalement à 50 matchs. pourquoi ma ne pourquoi on a l'impression que dafa stagner maanaam pas. parce que tes meilleurs joueurs est-ce que du administrativement la ñuy. non non non non c'est pas ça tu sais notre football local malheureusement est tributaire mais tu es champion tu es champion d'Afrique en c'est un football local qui est champion d'Afrique face à des équipes face à des pays ak pays yoo xam ne ils ont aujourd'hui un football soi-disant plus performant avec des clubs plus performants yu dem di gagner Ligue des Champions le Maroc ah Al Ahly ils ont gagné le WAC a joué la finale t'es d'accord mhm. la Tunisie mhm. la Côte d'Ivoire etc etc tous ces pays yi nga xam ne ils ont des grands clubs qui vont régulièrement mais mais nous même rek nous on n'a pas amené de club. mais coach foofu lañ lay xaar ci compétition africaine yooyu. non je vais foofu lañ non je veux t'expliquer que je veux t'expliquer ni que ni à toute chose ma la réponse c'est-à-dire que tu sais quelquefois y a même on nous reproche d'avoir part un club performant avec la poche de quelqu'un qui met 10 milliards et qui va toujours en Afrique mais heureusement que nous quand même on n'a pas ces personnes-là mais on mais qui démocratise le football. De telle sorte que le meilleur joueur peut partir de partout. Quand tu prends la sélection du Sénégal, tu charmes. Mhm. Mais c'est pas moins de 6 à 8 clubs de joueurs. Mais nga jël par exemple ku mel ni kii euh, euh, euh, RD Congo mais c'est tout de deux de clubs tu prends la tu prends la Côte d'Ivoire c'est 14 joueurs de de de, e e tu prends tu prends cest à mais ça c'est pas représentatif d'un football. d'accord coach. Euh, et et pose la question. très rapidement pose-toi le CHAN. aujourd'hui on a a gagné le CHAN. na jàpp na jàpp Greg loo bëgg a dugal Babou xaar mais Greg. non mais pour mais très tam <laughs> loolu dañ la koy nangul parce que ah. nous on a gagné. mais pourquoi ñun on avance pas bu ñu demee ba tey fi ñu ñuy xaaree. mais c'est-à-dire au niveau des clubs au niveau africain waaw c'est ça parce que mais parce que tes meilleurs joueurs mais tax nga mën a. mais mais mais dafa le Sénégal le Sénégal mm-hmm. le Sénégal est le pays le plus le de de joueurs. finalement on pour les autres pays. Ah, parce que parce que parce que maintenant il faut travailler quoi ce qu'il faut travailler c'est la fixation de nos joueurs. comment faire pour les retenir. Ah, d'accord la fixation de nos joueurs c'est-à-dire qu'aujourd'hui mm-hmm. bu fekkee Jaraaf est le champion d'Afrique. Mm-hmm. avec une bonne équipe qui a été championne. et qui prépare pour aller en championnat alors qu'il perd ses trois ses quatre joueurs ses meilleurs joueurs mais si aujourd'hui on permet à Jaraaf de fixer ces joueurs-là par un bon salaire mhm. yaa may dégg avec des moyens également additionnels mais xëy na peut-être que on fera comme les autres alors très rapidement coach. n'est-ce pas le président le président l'a dit les gens lui ont demandé la question le président a dit effectivement il faut qu'on ñu jàppale football local le football local aujourd'hui quand c'est la réalité. tu le vis en attendant ce plan là très rapidement coach. commencé nañ xaabaabal euh, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé ci ci ci éliminatoire CAN. U u yi alors il a il y a, il y a eu poly cette polémique là autour de John Lopi euh, du sélectionneur euh, Demba Mbaye ñu bari sax ñi ngi naan il est sur le départ ak yooyu boole nañ ci ki nga xamante ne moom mooy le sélectionneur Aliou Cissé alors premier réflexe ñëpp mooy est-ce qu'au niveau de la direction technique ñi nga xamante ne ñoom ñooy sélectionneurs yi surtout ñoom ñaar yi nga xamante ne cité nañ leen ils ont eu waxtaan ak euh, coordonner par rapport ak ku ci nekk bi ngay bi ngay bi ngay bi ngay def seen seen seen sélection euh, kii euh, Adja le football est un indivisible muy équipe du 7 équipe U15 équipe U23 équipe A mais par contre ku ci nekk dañ la assigner un objectif mm-hmm. d'accord nga man Aliou on lui assigné un objectif ñu assigner également Demba un objectif assigner euh, Malick Daf assigner ku ci nekk objectif mm-hmm. du dëgg joueur bi bu fekkee ne U15 la am te mu am xarañ joué U17 bu ko U17 bi soxlaa te U15 na ko jox mu bàyyi ko moom du dëgg. mu nangu ko ko jox. waaw waaw parce que da wax loolu. mais bien sûr parce que xamut mais parce que moom la lay wax nii parce que bu U15 bu fekkee dafa objectif de de résultat ou bien un match important parce que il a un bon joueur su fekkee ne par exemple moom il pense que ce garçon là aller jouer donc Demba a accepté de libérer John Lopy. mais bien sûr mais il a accepté. son capitaine kii foq kii foqatiwu ko non xam nga tu sais xam nga xam nga dafa am c'est-à-dire que c'est un point très sensible. entre un garçon qui guette l'équipe nationale et qui y va pour la première pour pour qui y va et ensuite quelqu'un qui dit qui renonce à ça qui est devenu en arrière tu sais c'est très sensible ce qui est important xam nga importance doy c'est-à-dire que bu ñuy toog ci yooyu bu ñuy dox ci loolu bu ñuy wax yu mel noonu parce que yooyu dafay indi ay polémique te xam nga important mooy am nañu équipe.

3-1 3-1 3-1 Bruce Diop. ban 3-1 si c'est-à-dire il faut que ñu xam ne ñuy wax Diop Lopy. il a joué que bi ñu dee Maroc pour. bi ñu match si mais joué wul ci qualification yi. d'accord. xam nga cest xam nga yenn dañuy wax lu nga xam ne quelque fois. du ñu mën ñuy wax Diop Lopy wul. mais équipe mais mais Demba May mais Demba May waroon na ko mën a yóbbaale. waaw mais comme que ñu ngi jëlee mën na ko yóbbu mais Demba bu ñu dóoree ñu toog bu ñu dóoree même ma àggali suñu suñu dóoree ñu toog ñun bu ñu dóoree qualifié ñu Demba Mbaye soo waroon na mën a waroon nañu ko mën a jox ki nga xamante ne mooy John Lopy John Lopy dem na équipe nationale A joué wul une minute waaw mais non mais xam nga. non on va revenir ci utilisation bi mais ñàkk joué bi ñàkk joué bi c'est pas important. mais war mais xam nga yooyu yëpp. xam nga li ma wax rek xam nga bu ñu nekkee bu ñu nekkee discuter ci yooyu. du ñu dem. parce que bu ci nekk rek dina am lu ci am regret boo nee kii dafa war dem te joué wul mais par contre le fait mu dugg mais c'est important pour lui. d'accord. le joueur. ñu sélectionne pas en équipe A. faut pas faut pas faut pas être également aussi. ce garçon il a besoin d'être d'être d'être appelé en équipe A même s'il ne joue pas c'est d'accord avec mais par contre keneen mi na non non non du jouer nañ ko bàyyi mu jouer fii oui effectivement de l'autre le dira également aussi donc ci d'un côté de l'autre y may dëgg mais ce qui est important c'est pas l'absence de de de Dion Lopy qui a fait qu'on soit éliminé. Qu'est-ce qui C'est pas mais c'est parce qu'on a mal géré ce match-là qu'on a perdu. Qui a mal géré? D'abord, on a mal géré. bu ñu on mais là de culpabiliser. Un match de football, il a gagné pourtant l'aller. Mais il perd. Ni mu def ba gagner fii, peut-être il l'a pas fait pour gagner là-bas. Et l'autre a fait en fait ni mu perdre fii fexe ba gagner c'est tout un match on le joue on le perd. c'est quoi problème faut pas jusqu'à moment jusqu'au moment où je parle c'est lui qui est le secrétaire de 2023 n'est-ce pas jusqu'au moment où je parle donc ça dit que donc je pense non, que non bu bu ñëwaatee foofu ci défaite bi euh, tactiquement est-ce que schéma bi parce que ñu bëri nañu ne c'est cette défense là à cinq c'est-à-dire léegi dafa am parce que liggéey bi ngeen di liggéey euh, benn ADN boo xamante ne léegi dangeen ko def ci li nga xamante ne moom mooy le footballeur sénégalais est-ce que du peut-être foofu la la la la la la jafe-jafe. la jafe-jafe mais pas de xam nga Ndiadia Adja gis nga on complique pas les choses. dañu bañ a n'a pas marché ce parce que vous vous avec la sélection olympique parce que dafay baax aussi bu nit ñi di wax. di colporter. parce que parce que des fois nit ñi ay commentaires rek la ñuy def. mais vous vous sur place. vous avez avec coach Demba Mbaye donc dafay baax nga gindi moment bi askan wi c'est vrai ñi ngi xaabaabal mais point boobu il faut ñu teg ci parce que cette sélection olympique là dafa nekk une une sélection qui est très très importante. parce que ñi ngi doon xaar Sénégal delluwaat fu ci mel ni les Jeux olympiques mais loolu dafay passer d'abord par une qualification à la Coupe d'Afrique mais surtout après euh, bi nga mun a qualifier wu bokk ci ñi participer ci Jeux vingt-quatre yi euh, alors mais est-ce le chemin de se qualifier mais kan moo gën a bëgg a qualifier U23 pourquoi donc pourquoi ça n'a mais li ñu qualifié coupe de coupe euh, coupe du monde te ñeneen ñi demul moo moo dal ñeneen ñi rek non cest xam nga cest à xam nga tu sais football li nga ma bëgg a wax loolu. du ma ko wax xam nga mooy lan mooy ma ne qu'est-ce qui n'a pas marché. mais je te dis ça. pas marché ce qui pas marché on est allé on a mal géré le match. mal gérer le match mooy l'équipe est entrée mal dans ce match-là. D'accord. C'est tout. C'est mais ça De la même manière où ici quand ils sont venus on est match on gagné. mais coach pour man. je ne parle je ne parle dama wax sax antam. d'accord parce que mais dama wax sax waxu antam. parce que le Sénégal a tenu jusqu'en fin de partie. les trois en minutes. Mhm. donc foofu noonu euh, du problème antam mais problème njeexitalu match la. donc euh, Demba Baye mu ngi ko doon wax le match le plus important ci en conférence de presse moom mooy le match retour. ah oui donc pourquoi la pilule ne euh, ne passe pas moom mooy instant bi ñu jël ces buts là en douze minutes une équipe qui a mené par euh, trois 3 buts 2 sax laay wax avant avant de revenir donc mën a jëlee tey des des buts de ce genre alors que le Sénégal mu ngi woon tey ci pente boobu noonu. waaw mais xam nga mooy li may wax rek. coach s'il vous plaît très rapidement xam nga xam nga su ma bëggee nekk fi di expliquer pourquoi lii moo tax ak lii ak lii xam nga dafa mel ni saa yu situation bu ñu vivre rek vivre nañ ko après. keneen vivre na ko keneen vivre na ko. oui mais au sortir de cette situation qu'est-ce qui s'est passé. waaw mais mu la lay wax. c'est-à-dire et quelle leçon surtout vous avez retenu par rapport à quoi. par rapport à cette défaite. cette débâcle là. cette élimination. mais quelle leçon quelle leçon. La leçon, c'est simplement que, bon, écoute, il faut mieux se préparer la prochaine fois pour aller. Parce qu'il faut pas, qu'on jette le dévolu euh, sur, sur une ou deux ou trois personnes. Oui, oui, de football. De la même manière, on les a gagnés ils ont gagné au retour. N'est-ce pas Peut-être que ce, ce match de retour, en fait, dont on parle, Yamedegue, mm-hmm. ou peut-être que les joueurs, comme tu l'as dit, c'est à la dernière minute qu'on prend les trois buts. mais ensuite il faisait très chaud aussi ça aussi faut le dire. mais moment bi équipe bële ñu gagné renforcé wu euh, Sénégal renforcé wul parce que ñi ñi aussi posé nañu. posé nañu c'est le choix l'équipe. d'accord euh, très rapidement on on parler des des des des jeux de. des <laughs> des jeux africains de de plage euh, très rapidement à Grégoire avec le planning euh, des Lions du du beach soccer waawa moom mooy euh, deuxième édition bi Adja bu ñu ko wax ces Jeux africains la nag ñoom jàppal nag ne ñu nga bi nag dañu koy amal muy Sénégal mi nga xam ne sax jàppale ni jamono ji nag moom jël na envol bi bu ñu koy xayma rek euh, li nga xam ne nag moom moo leen di xaar moom mooy euh, le Kenya ce ñu ngi ko fas yéene nag amal tey li nga xam bu ñu ci jógee nañu jongante ak ñi nga xam ñoom ñooy waa Madagascar après ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waa Tanzanie ñoom ñoo koy ndar ñu koy rappelé rek ce les Jeux africains yi nga xamante ñu ngi koy amale foofu ca réew Tunisie. et puis les deux équipes qui sortent vainqueurs euh, de cette euh, de ces deux poules A ak B ñoom ñooy daje en finale et puis ki nga xamante ne moom mooy euh, vainqueur yi aussi dina participer ci jeux mondiaux de plage yi ñu yi ñu war a amal fële ca Bali c'est en Indonésie. Euh, du 5 au 12 août 2023 euh, et puis on rappelle que les Lions du Bétis Soccer euh, sont champions en titre parce qu'en 2019 fi nga xamante ne moom mooy ci Salé fii ci Cap-Vert ñoom ñoo gagné woon li nga xamante ne moom mooy ces ces ces jeux de plage donc très rapidement après coach ak mot de la fin bi dama ko siy boole waale waa va parler ñu tàmbali ko rek ak tooñ Amara tey dina duggukaay kaay nice parce que ñi nga xam ne ñoom ñooy. Linguère ah ñoom Linguère dafa am ndam lu am importance tey Adja Linguère daan na ñaari. alors Penda si on bu tey 23e journée Ligue 1 uh-huh. voilà tey c' est une très grosse performance ak bu ñu ci jógee AS Douane am na ndam tam ci kaw Dakar Sacré-Cœur Arsenal excellence bu Thiès Statico ak uh, Jambar 3 bi partout match nag boo xam ne c' très riche en spectacle entre Guédiawaye FC ak Tëngéej Tëngéej moom moom mujjee am ndam génération foot moom dafa des rek di laabali ba léegi ñeenti bal ci benn digganteem ak US Gorée Stade de Mbour AS Pikine ndam demul ndam diggante Jaraaf ak Casa Sport jongante bi waajal dañu koo dàqati. dañ ko dàqani alors très rapidement au niveau du classement pas toujours de changement mais surtout génération foot qui conforte son avance face à d'autres académiciens Diambars de Saly. avec jàmbaar moom moo ci des Casa Sport son match a été reporté kon war naa a dabe ba léegi Guédiawaye FC nag moom tamit mu ngi seen ginnaaw tenir la baraque ba léegi euh, ci ventre mou bi nag les choses se compliquent également parce que euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy AS Pikine Stade de Mbour ak ñi nga xam ne daal ñoom ñoo jëm entre Gorée ba ci Sonacos foofu écart bi taxu ko bëri lool Amara Traoré nag ak euh, ñi nga xam ne ñooy Linguère foo ñu defaat aussi d'autres efforts parce a Stade de Mbour ñoom tamit euh, ñu ngi rek nekk di def liggéey bu am importance neuf excellence bu Thiès moom euh, les les choses sont sont pratiquement voilà les les carottes sont et puis euh, li nga xamante ne ça joue au coude à coude entre Linguère Douane euh, gi da nga koy boole rek en quelques secondes ñu ngi jéggalu ndax xaabaabal nañ mais sujet yi aussi moom moo ko laajoon. ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy les lions du beach soccer on espère. que cette fois-ci aussi dinañ conserver seen titre ak euh, très rapidement li nga xamante ne moom mooy championnat bi moment bi on attendait le classico malheureusement ak kàddu gu mujj gi euh, Jaraaf Casas euh, Casa Sport finalement amul pour pour raison de sécurité le le ligue professionnelle bi wax dañu bëri dañu ne surtout waa Casa Sport bi ñu annulé seen match bi face à Guédiawaye dinañu introduire li nga xamante ne moom mooy moom mooy recours mais on attend beaucoup plus de de fermeté ci ci ligue professionnelle bi très rapidement. bon <clears throat> y a, y a une structure qui le football la ligue. je pense qu'il faut laisser le soin à la ligue de gérer effectivement ces ces problèmes là. je ne peux pas m'avancer là-dessus sur mm <clears throat> dire que seulement quand il faut être euh, il faut qu'on soit heureux de voir quand même on a des championnats qui se jouent régulièrement et de manière permanente. et qui finissent et qui terminent vraiment euh, vraiment avec euh, avec toujours un champion je pense que ça c'est extrêmement important hein. la deuxième chose comme tu l'as dit c'est vrai que le beach soccer on prépare la, la la coupe du monde et on a concocté un très bon un bon plan de préparation pour le beach ouais. n'est-ce pas avec euh, euh, la fédération ils vont aller au tournoi donc euh, de dans les plages là et ensuite ils auront la possibilité de jouer effectivement s'il euh, s'il le gagne la coupe du monde n'est-ce pas et après ils ont également aussi un tournoi <coughs> qui vont rejouer également au mois de au mois d'août ouais. au mois d'août mm -hmm. ils ont également aussi le tournoi de le n'est-ce pas euh, euh, en, Afrique du Sud ce qui fait que vraiment ça leur fait effectivement un bon plan de préparation en direction donc de de la de la Coupe du Monde. waaw kaddu moom je pense que waxtaan parce que si waat ci par rapport ak. préparation bi parce que objectif bi cette fois-ci c'est de remporter euh, le premier trophée mondial. pour le Sénégal incha je pense que c'est dans le corps. incha allah kaddu gu mujj gi bon kaddu mujj gi mooy je pense que waxtaan nañu waxtaan bu neex. je pense que <coughs> on a pu discuter puis échanger. c'est ça qui est important je pense que. y a des am na yoo nga xam ne ay éclaircissement yoo nga xam ne peut-être baaxoon na pour ñu xam ko ça c'est bon ci wàllu équipe A bi ci wàllu football bi ñuy def parce que li am solo aussi également aussi mooy stabilité parce que ça aussi c'est important. parce que quand même euh, une fédération mooy li may wax rek sa à dire ay man man gëmuma ay mandat fédération football et sport. te ngeen bàyyi temps yi seen vidéo yi génn ci seen vestiaire bi. ah temps yi yi génn ci vestiaire yi bari na torop. vestiaire yi c'est votre intimité. waaw incha allah waaw de façon bon euh, li génn je pense que euh, Karaaj muy gérer communication peut-être dina ci dina ci dina ci liggéey bu baax ci loolu dina ci liggéey euh, li ma bëggoon wax mooy que stabilité bu baax parce que xam nga liggéey parce que tu sais en sport le minimum d'années qu'il faut pour au moins sa projet nekk ci bu baax wala mu kii c'est huit ans. d'accord huit ans. Mm-hmm. alors les mandats des fédérations c'est quatre ans. Quatre donc une fédération peut-être qui veut travailler sur un bon plan stratégique il a un minimum de travail de de deux mandats minimum. voire trois mandats et je pense qu'aujourd'hui l'exemple du football l'a montré parce que xam nga tu sais n'a pas de ces erreurs que nit ki bu fekkee dafa nekk ci benn yoon yow li ngay liggéey nii depuis Adja quand je te voyais débuter ici ak maintenant mais tu as beaucoup performé. du fii de. waaw non dama bëgg wax ne c'est-à-dire que Adja y a y a quatre ans Adja léegi. c'est ah, ah, Grégoire ah <laughs> xam nga ah évolue na bu baax parce que en fait. mais parce que on apprend à chaque fois nga ñëw nga jàll. yéen samay weex sama kanam war a def feedback yaa may dégg ci sa émission bi nga def. da lay permettre yaa may dégg boo ñëwaatee mu gën a baax et cetera et c'est comme ça et a rien de y y a rien de truc y a rien de y a secret tu vois. li am solo rek mooy amal fil conducteur man daal loolu mooy problème bi sax il faut travailler sur un fil conducteur de toute manière quand quand quand quand la quand quand le le, est bien balisé ah. nga xam fi teg sa tànk mais mën nga fa àgg. merci beaucoup waaw ça c'est important et donc euh, je pense que. Euh, bu beneen yoon mu ñëwaat fi encore. incha allah ce sera avec un énorme plaisir alors euh, Alaaji kàddu gu mujj gi. waaw di wax rek ne temps bi xëy na doyul. parce que. bëggoon nañ bu baax <laughs> mu gën a dugg ci football local bi parce que aussi xam nga rek ñun tamit loolu la ñu am. Mhm. dañ ko bëgg tellement ba tey yaakaar naa ne plan stratégique itam loolu nañu ko gën a mën a yokk daal parce que football local bi lu ñu am tamit moom moo ñu ko gënal bu ñu sañoon tey ñi nga xam ñoom la ñuy toogal ci koñ yi di naan ataaya ñooy di gis dans cette sélection la mhm. donc euh, rendez-vous rek très prochainement parce que. fi mu ne nii peut-être peut-être dimanche prochain. nee mu ñëw ñëwul xaalis. non aywa bàyyi ñun dañu bàyyi ñu yi rek. dimanche di dimanche prochain on a temps euh, Babou. Hmm. ba kàddu gu mujj gi. waaw ah, kàddu gu <laughs> di remercier vraiment le euh, le coach yàlla waxtaan bi neexoon na. Mm-hmm. voilà di tamit euh, jox rendez-vous gars rek. très prochainement incha allah xam naa dimanche bi. ba tabaski bi jëlul suñu temps. dimanche bi si topp incha allah. incha allah merci beaucoup Babou bonne fête toi merci beaucoup Grégoire. Euh, bon fête rak coach merci beaucoup bon fête euh, à toi. ñu ngi balo ak sénégalais yëpp di leen bal ak ndax ñun chaque jour dañuy ñëw dugg seen kër yi. te duñu tàggoo di ñaan tabaski ji ñu dëgmal yal na yàlla yombal ñëpp ñu am xar ñu mun ko feete dugg ci ci bisimilah génn ci ci alhamdulilah euh, di jaajëfal au niveau de la réalisation ki nga xamante ne moom mooy Penda di jaajëfal ki nga xamante ne moom mooy euh, Papa Diop euh, peut-être on va se retrouver dimanche prochain ou bien dans 15 jours ça dépendra ci programme production bi ak aussi par rapport aussi à la disponibilité des invités donc on vous souhaite de passé une excellente euh, fête jërë ngeen jëf euh, mais surtout restez scotchés à nos programmes demain à 7 heures vous allez retrouver ma petite sœur Aïcha Diaby pour Allô Sénégal mooy la matinale qui vous réveille jërë ngeen jëf.